ni leen nemmeeku woon si wàllub li nga xamante ni mooy teewal seen gox ak seen askan ñii di waa mouvement pour l'émergence ànd dooleel Macky Sall ba léegi ñi ngi wéyal seen activité si biir Touba ak li ko wër li koy firndeel mooy si talaata bi ñu génn am na ay ndaw yu leen taamu ngir ñu mën a parrainer li nga xamante ni moom mooy seen école de football bu bees école football bi nag di wuyoo si espoir de te promoteur bi di Moussa Silla nekk si Touba Daaru Marnaan te daanaka ñu ëmb si lu tolloog ay téeméeri téeméeri ndaw amal seen inauguration école de football si Mbàkke yi jàpp nañu ni mouvement pour l'émergence àndu dooleel Macky Sall bi ñu demeeku ni taxawaayam yaatu na si wàllu jigéen ñi si wàllu secteur d'activité yépp lu si mel nii informel côté social mais également di am benn rôle de citoyenneté bu am solo ndaxte kenn ëmpalewul seen taxawaay si lii di wàllu carte d'identité biométrique yi ginnaaw nag yooyu constat moo tax Moussa sila tuddee école de football bu mag bii xam googu ay du lenn lu dul du lenn lu dul réussite. waaw parrain bi li tax ñu taamu ko parce que dañoo yaroon ak moom depuis bi ñu doonee xale bi ñu doonee ay tuut tànk ñuy ànd di dem fu te gis nañ ni mu sonné ci Daaru Manaan aussi gis nañ ni mu sonné ci au département Mbacké moom moo tax dara warulu ko te dañoo gis ak OFA moom moo tax ñu jël ñu initié ko uniquement pour mu am góoraay te gis nañ li muy daj ci affaire moo tax ñu parrainé ko lu mu nekk nit ku moom moo tax tey ñu ñu tuddee naka noonu parrain bi am mbégte loolu ci taamu bi taamu mouvement bi ak jëbbam àndaloon nag délégation bu am solo ñu si mel ni Xaadim Ndiaye ak Xaali Gay ak yeneen jeunes yu bàyyeekoo Daaru Manaan ak Touba ak li ko wax yu dynamique maam Góor Aaj di fesal mbégteem dama naan bisu Moussa Sylla la wante bisu Daaru Marnaan la mboolem ku dëkk Daaru Marnaan damaa jàppale si nga bokk ndax lii dafa am solo santaat yàlla bu si ay ndaw luñ dugg yaakaar na yaakaar te daanaka fii li fi ëpp ay ndaw la ñun nag dañoo nekk si département bi di jàppale président Macky Sall wante nag jàpp jàppale waa Daaru Marnaan moo ñu ñor ndax Macky Sall lu yàgg-yàgg moom day jeexal dem ci wante Daaru Marnaan bokk nañ ko parti mënuñu ko xàjjali ko

maa ngi ànd ak Abdou Fall maa ngi ànd ak euh, am na gars yu bari yoo xam ne daal ku lim daal da ngay jiw maa ngi fekk sama xarit yu baax wax dëgg yàlla rafetlu naa seen jotaay sant yàlla bu baax rek ci loolu ku mel ni am na solo trop ci waxtaan wi. te xamal ne daal département bi moo ñor surtout Darou Marnane ndax nag ñun li may wax rek naan Amérique fa mu nekk nit ñi waa nekkul ñoo xam ne nii Sénégal dañoo dem Amérique di ko defaral déedéet. cérémonie bi doonoon occasion ngir mu mën a prononcé wu situation politique locale. président Macky Sall moo ñor wante nag département bi gisaguñ koo xam ne nii doy nañu pour ñu ànd ak moom liggéey en tout cas daal saa buñ ko tegee nañu ànd ak moom ndax président Macky Sall moo ñor te képp ku ñëw pour ànd ak jàpp ne président Macky Sall moo la ñor wante boobu. ndax liggéey bi ñu liggéey nii il faut nga am ndombal tànk wala loo xam ne ni moo lay mën a jàppale wante du sa moyen bopp ndax wax dëgg daara ma naan surtout Touba laay wax yaatu na yàq loo xam ne nii képp koy liggéey te say moyen bopp doo dem tax na daal pare nañ su président Macky Sall jox ñu ndombay tànk yoo xam ne nii dinañ mën a liggéey département bi ak ndaw yi département bi parrain bi am mbégte loolu moom ak xale yi fa nekkoon ndaxte jàpp na ni ku investir tout tànk yi maanaam mooy ëllëg bu yemb di sax biral ni Touba nemmeeku na ni baaxee na ay talent si wàllu football yoon ay xale yu yu mën ballon pied mu doon nag une première bu nu nemmeeku mu def ko ngir jàppale xale Touba ngir ormal dëkk boobu nag ne bi ñu ngi ko doon amal fii si Mbàkke si terrain bi nekk si wetu gaaru Ceex bi parrain bi ne dina def kéem tulaay kàttanam ba jàppale jeune bu Touba rawatina tout tànk yi nga xamante ni football rek la ñu bëgg ne dina wuti ay moyens dina leen taxawu ba école de football bi ëllëg doon centre bu royukaay maam góor aaj ak ñii mu àndal maanaam waa mouvement pour l'émergence nekkat jamono yii di ñëw am na déclaration yu am solo yu nu war a def jëmale ko si li nga xamante ni moom mooy législative yi nu jëm